bu Saint-Louis mu nekk tëkk bu njëkk boo xamante ne rek ci la fas yéene génnee nag ndakaaru bi mu jëlee fonction ba nega ni comme nag na ko ki nga xamante ne rek waxee di Mansour Faye man nekk nag maire bu Saint-Louis dina daal mu ngay sàkku rek ci askanu Saint-Louis ñu daal koy dalal ba noppi rek daal di koy teeru comme nañuy teereewul ndax mbir mu nu mel nag la Saint-Louisiens yi daal di xam ci mbir mu nu mel nag bu ñu sukkandikoo ci journal bi di Le Témoin mu joxe doléance am ca dëkk boobu di Saint-Louis te kii di Ousmane Sonko nag fas yéene fa amal tukkib nekk nemmeeku ginnaaw bu mu waxee ne rek Saint-Louis bokk na ci première ville mu nu mel nag ne ne ma ngay sàkku rek ci premier ministre bi mu daal di rek matal liggéey bi nga xamante rek sumb nañ ko ci wàllum assainissement maanaam daal ci wàllum set foofu ca diwaan bu Pikine ak ci cadre programme dix villes yi nga xamante ni rek doroon nañu ko boobaak léegi mat na juróomi at ne na nag liggéey bu am solo bi nga xamante ne rek jamono ji am na impact bu positif ci li nga xamante ne moom mooy ca wàllum set ba ca foofu ca diwaan bu Saint-Louis rawatina nag sa cité bi ñu dippee nag ñaax ngale ak fi nga xamante ne rek moom mooy bu njuk kii di Mansour Faye nag mel na ni daal dafa daal di teg rek ay courrier de doléance am ci mbir mu nu nag bu ñu sukkandikoo ci journal bi ma ngay daal di wéyal rek que ne maire bu APR nag ma rek ñu daal di pare liggéey yi nga xamante ne rek doroon nañ ko rawatina nag liggéey ba ñu amaloon foofa ci hôpital Aline Badara Cissé ak bu liggéey bu ak yeneen yi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon def mbir moo xamante ne rek dafa ñeel garage Ndar ci mbir mu nu mel nag nee na daal ma ngay xaar premier ministre bi nag di ko xaaree xel waaye di ko xaar rek en tant que républicain ci mbir mu nu mel nag kii di Mansour Faye la mu daal di digge rek moo di ne nag dinañu ko dalal dalal bu mucc ayib jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngi dara bañ leen raw